projet yaakaar dafa nekk projet boo xam ni dañ ko jagleel ndawu banlieue yi euh, bëgg nañu ci projet bi nga xam ni Union européenne moo ñu ci gunge ñu jàppale 200000 euh, ndawu banlieue fii ak 2023. non non du Guédiawaye kese suñu projet bi pour banlieue yëpp la banlieue de Dakar donc yow bu dee ndaw nga euh, nekk ci ci banlieue bi rek bokk nga ci projet euh, jeunesse espoir ñu ci ndax jàng nga jàngoo ñu ndax yaa ngi liggéey wala liggéeyoo euh, bari nañu ay programme nag yu ñu teg pour ndaw yi euh, am nañu programme li ñuy woowee incubation loolu pour entrepreneur yi la pour ki nga xam ne mu ngi yëngu ci dara ñu jàppale la ba sa entreprise gën a gën a gën a jëm fu sori am nañu ay programme également ay formation ñu naan formation technique mooy métier jàngal nit ñi métier am nañ ci wàllum informatique lu ñuy jàngale wàllum togg cuisine wàllum culture affaire yooyu ñu bëgg accompagner yenn programme yi si bi teg ba pare ñu gën leen renforcer mais tamit indiwaat si ñuy ay programme ñun euh, am nañu programme volontaria boo xam ne dañu bëgg jàngal ndaw yi nu ñuy def ba gën a dugg ci seen communauté gën a gën a mën euh, di indi ay solution ci ci ñoom seen Euh, li ñuy jànkantoo ci seen communauté yi mais bëgg nañu aussi jeunes yooyu ñu dugal leen aussi ci ñun

comme ça yéen ñëpp ngeen yéegandoo donc vraiment innovation boobu la ñu andi ci wàllum euh, ndaw yi